j'ai la lourde tâche de transmettre les félicitations et encouragements de M. l'inspecteur d'académie de Thiès, empêché pour des raisons que vous connaissez. Nous sommes à un tournant de l'année scolaire où nous avons beaucoup de livrables à évacuer. Mais vous pouvez mesurer la considération accordée à cette journée d'excellence. Lorsqu'il a été informé de votre présence à l'académie, et a cessé toutes ses activités pour vous rencontrer. Chers élèves, l'inspecteur d'académie euh, de Thiès exprime toute sa fierté et son admiration. Il vous, il vous félicite et vous demande de persévérer dans la tâche pour votre bonheur, mais celui de vos parents. L'inspecteur d'académie est convaincu que vous êtes le socle sur lequel est basé le développement de notre cher pays ne vous déviez pas du chemin de l'école et de la réussite. Vos parents portent un immense espoir sur vous et vous n'avez pas le droit de décevoir car vous devrez être les véritables agents de transformation de nos communautés, de nos vies en général. Madame la proviseure, l'inspecteur d'académie tient à remercier la COECA qui est un partenaire privilégié de l'éducation de l'école sénégalaise dirige. Votre lycée en est un exemple. Notre collaboration sera renforcée et privilégiée. À l'Alasco, qui est ma famille naturelle, après avoir subi une bonne formation en Corée du Sud, on n'a pas oublié que nous venons des communautés et qu'on doit rendre des œuvres à la communauté. Et je tiens à féliciter Madame la Présidente de l'ALASCO je dirais ceci en anglais. Your dedication is unfailing and your dedication must be saluted. Votre dédication, votre engagement est sans faille et sans limite. Merci à tout le monde et bonne fête. may wax ne suñu mbokki koykaay yi nga xamné ñom ñofi tabax lycée euh, lycée bi CEM lañ ci djublu won moom lañ jubaloon Tëngéej moom lañ jubaloon Kër Masaar moom lañ jubaloon Gànjaay mais yàlla def na la ñu doon séentu seen gis-gis romb na loolu ndax ay liise ñoo toog ci place u CEM yooyu liise yooyu nag résultat yi résultat yu am solo la ndax gox bi yëpp fii la ñuy ñëw ma wax ne résultat yooyu war nañ ci sant yàlla sant ci professeurs yi ndax professeurs yi seen xarañte moo indi école bi fii li ko fi indi aussi gis nañ ci ne fulla ak fayda proviseur bi ko jiite ak censeur bi mu àndal ak euh, intendante bi wante ak fàttewuñu surveillant yi nga xam ne yëpp ñoo ciy jàpp ndax daaw am nañu cinquante cinq pour cent ci bac pour une première ci BFM bi romb nañ quatre-vingt-dix pour cent donc kon loolu war na seen xarañte kenn nattamlewu ko ci gox bi ñu nekk leneen li si dolleeku suñu xarit di suñu ay mbokk waa Alasko mu nga xam ne kuréel gi nga xam ne ñoo jóge woon fii dem jàngi fële ca kore ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax li ñu def mooy at mu jot pour xale yi gën a karawaase seen bopp dañ leen di dajale xool xale yi ci gën a xarañ ñu neexal leen kon ci biir loolu ñoom waa Alasko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan feet bi neex bés déwén incha allah.